Tombeng la Donkin doom ji la yebal muy makkan moo war a organiser mars fii ci arène nationale bu la neexee nga ne dimanche bii di ñëw <laughs> ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom li règlement nangu ak li mu bañ consulté na ay juge am ñaari mbër yi rom sa kàbbar na ko consulté na ay juge am ak quatrième bi wax naa ñaari mbër yi arbitre sifflé na ñaabo ndaw ak rams ñaabo ndaw moo nu wan ginnaaw rams a ngi ñun da sore yoo da ngeen a sore yoo ku ne ngi taxaw di ñaan Niang Bou Ndaw ak Rams Rams a ngay direeku Niang Bou Ndaw ngi taxaw ñu ngi bu ndaw Ramsan ko sëkkatal na ko mu repli replier sëkkatal na ko mu replier Ramsan ko sëkkatal bu ndaw ak Rams yooru Rams yooru Rëms yaaru na Rëms a ngi ko moom Niang Ndaw Rëms rasu laali ko ñu ngi téyante Niang bu Ndaw ak Rëms ñu ngi téyante zongole na ko wañ ko dóor ci suuf ñaa bu ndaw daan na ko zongale na ko dóor ci suuf ñaa bu ndaw daan na rëms zongale na ko dóor ci suuf jëli bi rëy na